Uh, Gambians in Italy issue help call as Gunjur boy 19 dies in accident. Uh, the story is Gambians in Italy have been thrown into mourning following the death of a 19-year-old Lamin Suso. The Gunjur native died after his bike crashed into an electric station, according to local media. Others reports suggest that he died after he was hit by a person car. Lamin's death was confirmed to the Fatu network by campmates. They are seeking help to re uh, repatriate his body to the Gambia. Well, that is a sad, um, sad story there on the Fatu network a nine, involving a 19-year-old boy, Lamin Suso, uh, who xamne like uh, dafa Defa Ganyu, si accident ñeneen um. car crash moo ko téye ñeneen ñu ne si bike so these are the two conflicting reports why um, you know I am sure ne like uh, they will gather more news on these things te is a very sad one may his soul rest in perfect peace so Gambians su nekk um, in Italy they are seeking help pour ñu andi ko back to the Gambia. waaw defe naa ne lii yëpp mooy liñ doon wax ci ginnaaw rek tey nga xool tey dem tukki nu métier. bu fekkoon kii xam na ne tukki bu demee ba yegg bakkanam foofu lay des dina doon jéem kéem te lay kàttanam mu toog ci njabootam ba tey jii du génn àdduna ña fa nekk di xool naka la ñuy amee as suñuy jël koppar gu nga xam ne mooy mun a delloo si néew bi te ñu ngi koy wax ba tey is na yett confirme ne accident la moto moo ko tampon wala bicycle bi mu doon dawal moto moo ko tampon loolu yëpp day wane ne xëy na génn moo métti ba yu mel ni yëpp bu la dalee mu ngi noonu daal allahu axlan te maa ngi seetaan tam ci Facebook bi démb xaw ma ci Sunday bi maa ngi gis di same thing mu ngi dal benn xale bu jigéen tam ñu ne dafa gaañu Amérique di same thing la xawma ma jaamani xaw ma fan moom tamit dañ amul luñ ko delloosee ba niwam ñu ngi sàkku tamit ndimbal ci delloosi ko ci li nga xam ne mooy réew mi yii yëpp moo lay wan ne méttiti fële ak méttiti fii yëpp daanaka yëpp lu nit mën a méngale la waaye mu ngi noonu waaw euh, affaire yi daal <coughs> comme gars ni ñu koy waxee rek am nga bugg a bugg a tekki moom dafa dafa metti mm-hmm. euh, yombul euh, ndaw yi mel nii ak ñeneen moo tax ñuy bàyyi ko fii dem foofu noonu am yéene bi waaye nag lu tiis la tamit lu metti la ñu ngi ko jaale li nga xamante ne mooy famille am bi ak ñi nga xamante ñoom la nekkaloon foofu ci Italie I know repatriation bi nekkul yomba it's difficult but I know if efforts are à uh, doon you bi ci ñëpp jàppee I feel ne uh, dina mën a yomb incha allah uh, ñu ñu ñu ngi ko ñu ngi ko jaale beneen yoon dima masaw famille bi yëpp and ne daal you know incha allah lépp dina lépp dina baax